maa ngi fii di fiñ ci Bamambé maa ngi tudd Salif Coulibaly maa ngi fii liggéey faj bu nopp bu métti ak boñ bu metti foo ko jàngee xam-xam boobu sama yaay moo ma jox nan la la ko joxe parce moom sama xaritam bu baax manak moom maa ngi waxtaan ak moom 9 heures ba minuit wala ba une heure du guddi ma waxtaan ak moom ma nekk sama xarit bu baax man diggante man ak sama yaay benn jour ma ne yaay dama bugg xam-xam mu ne yow soo buggee dinaa la jox parce que yow dangaa bëri yurmel ci man sama xale bi yëpp yow yaa kese toog si man guddi ba une heure du matin wala ba minuit yow yaa kese donc soo buggee dina la jox dina la jox xam-xam boobu soo buggee beneen xam-xam dina la jox ma ne waaw dama bugg jàng xam-xam bi parce que man xaw ma yaa guddi fii ba xaw ma duñ tudd si olof mu ne waaw pare dinaa la jox bu ma ne dégg naa la jox joxuma la ma toog ba une semaine deux semaines ma ñëw man yaay dama bëggoon xam-xam bii de ma ne ñëw ma fii waxtaan ak yow pour xam-xam bii no ñëw naa fii waxtaan ak yow ndeg diggante yaay ak ak doomam man wallaay xam naa loolu dinaa la jox ma indi kay ma bindi moom li xam ci àdduna jël naa la et puis du faj nopp walla boñ rek jox ma jox na ma xam-xam bu bëri bëri bëri bëri bëri léegi maa ngi fii def xam-xam bi léegi xam-xam boobu mu la jox kañ la la ko jox ak nan la la ko joxe ten yan charte lala wax ni xam-xam yooyu war na ko moytu war na ko mën a def dafa am loo xam ne xam-xam boobu war na ko moytu waru ko def walla am loo xam ne war na ko mën a def. waa xam-xam boobu am na moytu am lu may bañ am na moytu parce que soo nit xam nga faj. il faut nga def garantie ci yow sinon rek maladie bi day delluwaat ci yow. waaw waaw sinon sa bopp da nga gofle xam am na beneen maladie rek soo moytul maladie li day ñëw ci moom. su fekkee ni fajoo nit. waaw waaw soo fekkee faj ki nit bi même yow ku faj bi danga nga war garantie. da ngaa war a jëlal am na garab gu sangu nga def garantie entre ak maladie bi soo defee loolu après nga faj nit yi soo deful lu yàgg-yàgg danga am problème. sawaay kan la duddu aduna. sama yaay yàgg na ci faj bi parce que daa nekk trente wala quarante sama yaay faj nit yi am na ku jógee Mali am na ku jógee Murtani am na ku jógee saint am na ku jógee Bakel am na ku jógee Ferlo munu ma wax sax ku ñëw fii dafa bëri sax suba gis nga yii dafa bëri nit. ñuy ñëw di faju ñuy ñëw di faju am na ku ñëw faj boñ bu metti nopp bu métti lii ñu tudd si wolof même waaw put bu métti mm-hmm. faj. damaa def nag kon bugguma faj boobu. lu tax parce que da ngaa gis am na ko ñëw fii faj boñ bu metti walla nopp bu métti da bi gis nopp bi dafa am mbër nu ñu tudd fi wolof. Euh, mbër mbër. Ah. gis mbër bu mu génn ak sax bi soo waxee man fajuma nit boobu day mere. il faut nga jël sa sa sa sa gémmiñ nga def ci biir bot bi ak kii bi nga génn xam nga loolu neexul sam yaay nag mun na supporter lool moom su defee du dor ci moom kon moom yenn saa yi su moo defee sama xol bi sama lekkee rek dam lay wàcc. ñu gis ngay génnee ay sax ay sax yuy dund expliquer ñu nan la mën a nekkee sax yi. xam nga nit. ak bëf benn la nit loo gis yaa du soit bosa boñ dafa métti def odoor odoor bi foofu sax bi nga juddo bu def sax bu ndaw def siir di ci biir ren boñ bi soo yàggee foofu après sax bi day dem rek tourne waat boñ bi dafa métti dafa diis soo ñëwee rek mba dindi ko rek dans deux heures de temps ou bien benn jour c'est fini. est-ce que sax yi aussi nekkul li ngeen di luxus li ngay luxus. non man avant bi damay def kii bi. du ma benn weñ rek li ñuy gis nga yor càpp ko si bëñ bi wala si kii bi. parce que avant bi man dama xalaat lii ay ñëngi la taalu ma jàng. ma wax juju njinki da ngaa gis am na ku ñëw fi da ngaa gis gilli na wite wolof même sax sax bi day génni ci boppam da ngaa gis sax bi day génn ci boppam ak mbor di day génn ci boppam ma def banta rek ma jël ma dindi ko ma dindi ko bu baax so ma ko dindee soo jeexee ma def sama gémmiñ ma ma dindi mas nga faj nit nga am ci problème mu dellu si ne fajoo ko wóorul wala mu indil la ci problème. non musuma suma def man suma ma fajee nit day fay mille francs day toogaat trois ans quatre am na ko toogaat dix ans ñëw fii am toogaat quinze ans ñëw fii ma sama yaay sa yaay muñ ñëw naa fii. ben année ça fait 10 ans 15 ans sama wala sama boj man tout lay wër bi yalla fi da ngay nit trois ans 10 ans du ñëw ci mom da ngay suba nga ah vraiment même ba légui dafa metti day soriti ci ren bi faut du ñew da ngay tir tir bu après et puis faut tirer odeur bi day jàpp Il fi sa xol sa xol moytul rek sa xel day tay sa xel wala da ngay am problème ku ne musuma problème bu parce que odeur bi kon day am odeur. oui day am odeur am nga ku nit day am odeur parce que nit bi yëpp yemul bokkul am na ko mun toppatoo sa gémmiñ am ko munul da gis rek nit sa ñëw fii boñ bi dafa gudd dafa dafa tuuru ba dafa sort dafa génn ci boñ bi ak weñ forfo da ngay def fi gemil ja def salif yaa wax ne sa way mo la jangal xam-xam bi sa way daf fi nekkatul dafa bàyyi liggéey bi wala lan la sama yaay da dafa gañu ah donc bala muy gañu loolu la ko jàngal waaw waaw bala muy gañu mom la jangal mokal nga ko bu baax waaw waaw mokkal naa bu baax pay bi ñaata la bëñ ak nopp ñoyam yam prix wala yamuñu prix boñ ak nëpp moo yem prix ñaata la boñ benn boñ mille francs lay fay benn nopp mille francs lay fay prix bi mille francs rek ndax di nga am client boo xam ne bu ñëw bu kontaan jox la lu ëpp mille francs waaw yenn saa yi dama am benn nit nga fay boñ benn boj wala benn ma dix mille wala cinq mille man affaire bi du noonu de 1000 francs bi non kuréel bi mala la jox jëlal parce que kontaan na. ci lan nga doon yëngu avant lii. avant yi maa ngi dem Dakar def siraas jaay socc ma bàyyi foofu ma dem Côte d'Ivoire ma bàyyi foofu dem Cameroun ma delluwaat fii ma jaay bul ak omo même ba léegi damay sama saako bul mu ngi ci biir. ak omo ak ak ak ak kii ak saabu yenn saa ma bàyyi ma dem wóor parce que munu ma toog rek munu ma toog. ndax mosoo si am problème rawatina si pajum tubaab yi. ku ñëw fii ma ne kontaan ci yaay yenn saa am nit ku ñëw fii ku jógee Bakel wala ku jógee Murtani. mu ne an mère bi mu ne mère bi daa gaañu too fi jooy jooy bu métti won ah sa yaay dee waay ñëw naa fii ça fait dix ans wala cinq ans wala treize sama boñ wul ba léegi léegi nag damaa am beneen boñ bu métti ma ne waaw bismillah ma def sama xam-xam am na ay bés yooyu liggéey yoo dul liggéey wala chaque jour da koy liggéey. chaque jour damay liggéey chaque jour suba ba une heure guddi damay liggéey man nag sama xol nangutul def bi man jaay rek laa bëgg dem jaay omo ak gula saabu xam-xam bi jox naa boy bale ma ne nekkul fii kul ñëw fii faj ko. sama toog fii bul faj kenn kooku sama rakk ne kon di nga tas xam-xam bi ci biir njaboot ji waaw waaw jox naa sama rakk waaw jox naa sama rakk ak sama doom même sama doom bi mu ne bul def léegi xaaral ba ci kanam sama rakk bi moom jëngul man maa jox xam bi sama rakk man munu ma toog man mun naa rek def baana baana loolu rek moo tax ma jox sama xale bi sama rakk bi. Salif Coulibaly ñoo ngi lay gërëm di la sant. di fàttali ne yaa doon suñu gantey tey ni ñu fekk si la fii ci Sinthiou Bambey mhm. toll si quarante cinq kilomètres digganteem ak Matam mhm. mbokk yeeg xarit yi yéen ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje beneen yoon incha allah.